ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mais le président Bassirou Diomaye Faye est-ce que vous avez des choses euh, à lui reprocher ci sa gestion euh, parce que xëy na ñu bari li ñu jàpp mooy il n'est pas assez présent comme un président xëy na euh, dayo bi matewu ko ak moom ni ñu ko falee peut-être moo koy expliquer mais à chaque fois yéen seeni coup yëpp ci Sonko lay jëm. parce que dañu bëgg un président boo xam dañ ko libéré président Diomaye dañ ko war a nekk sous il a parcouru plus de soixante-dix mille kilomètres mais au finish lan la indi Sénégal une vingtaine de milliards la fi mhm. dugal mais li ñu bëgg mooy un président de la République boo xam ne dafay am carnet d'adresse mais également dafay mën a xool njariñ fu mu mën nekk ci àdduna mu indi ko mhm. mais tey un président boo xam ne mi ngi voyager partout dem ci àdduna bi mais amul lenn loo xam mi ngi koy indi Sénégal